liggéey bu rëy a ngi nii ñu war koo liggéey te waruñu ko seetaan ndax Léna Guèye mii dafa jot ñu daan ko ay daan yu mag waaye dafa jot jot jot ñu daan képp koo xam ne day wane lu bon ak di jàngale bon ci télé yi bu ci gouvernement bi mënul dara nañu defoon du ma tudd tur ñu defaat ko buñ ko defee ñun jullit yi ak ñun ñi nga xam ne bëgg nañ suñu doom la ñuy xool mu baax loo xam ne dina leen jariñ ñu sàmm ko sàmm suñuy jikko waaye sàmm suñu réew leena xanaa amoo ay doom wala buggoo am ay doom wala amoo yaay ak papa wala amoo ay mbokk yoo xamante ne mën nañoo tax yow nga rus bët bu rusul tuuru te olof njaay dafa nekk ñëpp tifli nga tooy te leena da nga tooy xepp réseaux sociaux yi foo jàpp sa tur sam image nit ñaa ngi koy véhiculer ñu ngi koy teg di ko tegaat munoo ci dara ndax yow yaa ko jëf na bàyyi xel ne boo du xalaat ñett fanu bàmmeel boo du xalaat tëraay bàmmeel bu yàgg ba boo dul xalaat lëndamaayu bàmmeel boo dul xalaat nga wéet fa yow kese kot dong kenn du la fa fekk lu dul sa jëf yi nga doon jëf te yàlla nañu yàlla musal ci jëf yu mel nii ñun nag ay jaam lañu du ñun ñooy àtte waaye dinañ dénoncé mu neex la mu naqari la ak ku mu naqari tam dinañ dénoncé jullit bi dafa war a naqaru lu neexul yàlla bu ko mënul faj na ko naqaru na ko yuuxu ba ñépp dégg ko chaaw rabbi di nga dajeeg sunu borom bu ëllëgee te dajeeg sunu boroom la ñépp di ñaan waaye bañ ànd ak iblis ma féttéerlu iblis ma nga xam ne sunu borom rëbb na ko ba jam ko dàq ko ci mbooleem yërmande iblis waa yasaay aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani xalifa rappeur a ah, laa mi ñu askan wi noonu naa fekk yi man la sumuwaa ji eh? é toos ñabe muy but buti waa lii but buti si réew mi nii gan man la sumuwaay ki kàlla nii leen a géy caga kii de gan la sumuwaay lii bertuma si moom ndax ñun en tant que citoyen sénégalais bi ngay xam fii si côté terrain basket Nord Foire nga xamante ni gaamal la sumuwaay ay borom tur yu bëri daan nañ ko seet si gaan di ko këf di ko yóbbu si ay auberge ñu yàgg ko gis gaamal la sumuwaay muy dugg si ay auberge dafa dugg ak ay borom tur ay saay-saay ñu yàgg ko tëddee ah ba Balla Gaye man la sumuwaay bi muy ñëw di ko takk nante yu bëri naan yée Balla gaan xaa ngaaxa la lu tax muy takk booy bi nga xam ni dëgg rekk ay mujj sëy bi sax yàggul ndax ñii duñu ay sëykat duñu ay jigéen yu baax ñu musuñu nekk ay royukaay yi moo nekk dëkku naa fekk rek nga xam ni colossar yi ak cagay yu tekkiwul dara vaurien yi nañuy jël di leen def ay star mais duñu dara man la sumuwaa ji man de lii la bertuma si moom gaa man la sumuwaa yi saawaay ñii xaalis jaral na leen lu ne waaw man la sumuwaay xaalis jaral na leen sax ñu jouer porno même si yàlla gi dem bi Fall nga xamante ne suñu papa ji yàlla na yàlla xare àjjana 45 millions yi nga ko proposé woon noonu ñii xoola 10 millions sax boo leen ko proposé woon ñu joué le porno barki alxuraan gëmuñu dara gëmuñu ko caga yu bon yi. di wax ndax en tant que lamiñu askan wi CNRA ak kilifa yëpp maanaam seen série bu bon boobu noonu nga xamante ni nii ñi ñuy def lancement bi ñu ngi wax maanaam autorités yi ñu censuré. film boobu noonu mu bañ a daw fii si biir Sénégal quoi parce que dal nañ sëkk si affaire de caga yi taat taat taat taat dëkk baa ngi gën a metti di umu ndax affaire de taat te genre caga yi kase gaama la sumuwaay ñoo um Sénégal nit yu bon yii nii man la sumuwaay yi ñi duñu dara tekkiwuñu dara duñu ay royukaay saawaay kenn waru leen topp ku bëgg baax boog man la sum waay waru leen sax lijjanti noonu la demee dafa fekk ni rek bu ñu defee dara pour yàq Sénégal ñun dinañ génn saa waaye te yàlla rek a tax waxal dëgg te yàlla rek a tax dénoncé seen caaxaan yu bon yu ñu nekkee ki dafa di dara ci ñu yàgg ko tëddee kii ba doon dajale gaan la sum waay sulu yu mu encaissé gaan xanaa bu la ko doon konteel sax mal la sum waay mun na fanaan ay une semaine di ko compté ñi duñu gat nekkuñu ko duñu ay sëykat duñu ay jigéen yu baax man la sum waa ji askan wi la ndax noonu naa feq yi man la sum waa ji eh? xoola tous ñabe ngay but buti nii jëm leen a baax ngeen roy seen yaay ak si jigéen yu baax yi